ci loo ne taay nga de. dëgg la ah man de man de dëgg rek laay àtt Sénégalais yi moom xam nga bëgguñu dëgg te man moom yàlla alxuraanu yàlla jaxati si yonent bi du ma ko fi bàyyi mukk di déglu ay aada ki bidaa du ma ko def. nga ne lan moo. moom ñoo koy tuumaal ne góor jigéen la. amuñu mhm. amuñu preuve nag yoruñu dara dañ ne rek góor jigéen di ko tuumaal ba mu mhm. faatoo Kaolack lew na ñu mhm. denc ko ba suur ko ay nit fekk ko fan ko suul ñu sunni ko teg ko ci tali bi taal ay pneu teg ko fa lakk góor jigéen bi léegi ma leen di laaj ne leen fan lan teg loolu même bu fekkoon dañ ne góor jigéen la lakk yàlla nee na ci alxuraan kenn amul droit lakk nit gunóor sax amoo droit lakk ko junnit ku dul jullit di yéefar amoo droit lakk ko du xadiisu yàlla yonent bi sallallahu alayhi wa sallam duñ ko génnee suurat boo xam ne nii ci alquran ba mu jeex li ko dalee baqara ba naasi doo génnee benn aaya bu yàlla ne góor jigéen bu gaaño bu faato dañ koo war a lakk ba pare ana yan preuve lañ ci am ba war koo mën a lakk loolu mooy sama kaa liñ ko def dañ man dama gis gars yi di ma partager sa live bi rek xam nga man bu ñu may partager live bu bari rek xam naa ne dara jàmm xewul man maa ngi nii sax New York laa nekk nii léegi laa wàcc ci aéroport bi laa ne mais man dama dama dama sama nit ñi sama nit ñu baax ñi nga xam ne yàlla dama boole ñoom dañ ma ne pour ma bàyyi TikTok bi parce que TikTok baaxul day yàq crédibilité day yàq jikkoy nit day yàq jikkoy doomu aadama xam naa sax buñ ma déggee dinañ ne mbaaya ne promettre woon nga ñu ne di nga bàyyi te yaa ngi nuy duggaat ci live fi mais li may wax man Sénégal dara bettuma fa Sénégal ay sulli nit taal ko ay fekk nit dinga Sénégal dem ba fekk doomu aadama mu toog ñuy dagg yàpp bi di ko lekk di ko wàjj sax bettuma fa di nga kooku ñu sulli ne góor jigéen la daa di koy sulli xaw ma yëgu ma fekkeew ma man l'essentiel man xam naa ne man saa ngoone biram jigéen man ci kattanu suñu borom ak mbaaxam ak yërmande man sénégalais du ma sulli sénégalais du ma taal ndax siquma ko xam nga Ousmane Sonko boo seetee ci ginnaaw ay temps dañoo ñëw ne ko Ousmane Sonko affaire góor jigéen yi pour nga signé loo ci xool jigéen góor jigéen bu ma romb nañ ko rey góor jigéen bu ma romb nañ ko def lu bon man Ousmane Sonko ma signé ko mbaa ma def ko ci sama gouvernement nit en doomu aadama rek day mel ni tey man ma romb benn móodu rek en ko ne góor jigéen la ñu jël ko tëj ko wala ma ne góor jigéen la ñu jël ko rey ko Sénégal nag dëkku bañ dama lay bañ te bu ñu la xasee ba bañ mën nañ la topp ba ci sa biir bàmmeel parce que ki nga xam ne dafa dee ki nga xam ne dafa dem ba génn adduna ak lu mu mënti doon ci àddina waxuma la góor jigéen li gën a bon ci àddina sax bu ko nit defee bu deewee da ngeen ko war a bàyyeeg yàlla muy bokkaale yàlla gi nga xam ne Sénégal mooy le pays le premier pays number one des bokkaalekatu yàlla moom Sénégal. loolu moom man Sango ni Birame Jigéen maa koy wax réew mi nga xam ne fa la ñuy ñàkkee yàlla wor ma réew mi nga xam ne respecté wuñu yàlla réew mi nga xam ne fonkuñu yàlla réew mi nga xam ne yàlla da leen bind. sàkk leen ne leen maa leen moom man ngeen di jaamu maa leen di bind maa leen yoral àddina maa leen yoral alaaxira maa leen di dugal àjjana maa leen di dugal safara dañoo jël yàlla ne ko yow jëlal sa basa nga tëdd noppi ñun gëmuñu la ñun sëriñ diw la ñu gëm sëriñ diw la ñu yaakaar ñun ñun li nga ñuy li nga ñuy defal duñ la ko sante duñ la ko gërëmee faale wuñ la du ñu lekk ba sant la duñu naan ba sant la du ñu am yaakaar ba jàkkaarloog yow ñun gëmuñu la yaakaaruñu la kon dëkk boobu bu ñu taalee góor jigéen wala ñu sulli góor jigéen na góor jigéen ba sant yàlla parce que suuf suñuy bokkaale yàlla du suuf soo xam ne yàlla daf fay def barke seen suuf yooyu nga xam ne kuñ fa suul ne góor jigéen danañ la fa sulli ñoom góor jigéen ñi fa sulli sax nañu sant yàlla parce que suuf suñuy bokkaale yàlla di fa mbugal doomu aadama yi parce que àddina yàlla bindul àjjana ak safara lu dul ku koy bokkaale ba yàlla bindee àddina bind allaaxira bind àjjana bind safara dafa teg àddina teg allaaxira teg àjjana teg safara ne képp ku ma bokkaalewul dinaa la dugal àjjana waaye képp ku may bokkaale safara ngay dugg xaali diina fii xaa te da nga fay sax waxul képp ku ne góor jigéen dinga dugg sax laa ah, sa yaram araamal na safara mais Sénégal dëkk la boo xam ni ñoom xamuñu yàlla xamuñu yonante ay nit nag bu ñu jàngul alxuraan jànguñu diine man ñu ci bari sénégalais man mii maa leen di jàngal diine wax man am na ñoo xam ne man mii lañuy jël ci suuf bu ñuy julli xamuñu lu ñuy tari xamuñu lu ñuy wax xamuñu yàlla xamuñu yonante bi boo leen dékkee micro sax naan leen lan mooy sooratul faatiya ñu naan la li sëriñ bi defoon lan mooy sóoratul ixlaas ñu naan la li sëriñ bi defoon koo xam ne jàngoo yàlla jàngoo yonante bi sëriñ bi nga gëm yaakaar ko waxu la yàlla waxu la yonante bi boo demee mu woo la nga war a toog ci ndaje moo xam ne ndaje diine la duñ fa wax yàlla duñ fa wax yonante bi ñu nga naan diw indi na fi million diw indi na fi nag diw indi na fi nàngam ñooñu nga xam ne xamuñu yàlla xamuñu yonante bi suñu fekkee ay doomi aadama suñu fekkee koo xam ne nii mi ngi dox. yow ah dimbali ma nga naan may ma yàlla nga xam ne. yaa dem jëli. ñooñu nga xam ne xamuñu yàlla xamuñu yonante bi suñu fekkee doomu aadama bu toog. nit ñëw ci ñoom ne leen ki ñu fi suul góor jigéen la mën na ñoo dem sulli ko sax jël yàpp bi lekk ko parce que affaire boo xam ne nii la c'est vraiment traumatisant man léegi laa dugg ci sa statut fa laa ko gisee ndax soxor ak bon gi may wax ci sénégalais yi daf leen dépassé ñoom sénégalais yi sénégalais yi bon gi nekk ci ñoom soxor gi nekk ci ñoom rancune gi nekk ci ñoom animosité bi nekk ci ñoom dafa dem ba ñoom sax daf leen jaaxal parce que nit ku dee waxuma la ku dee sax tey xam nga tey bu waa ji dee woon sax ñu jël ko di ko indi ci arméer yi ñu dogaale ko ci biir arméer yi ne kenn du ko fi am nañ ci plein droit ndax am du yoon. mais nga aadamoo déglu ma aada ah, déglu may dégg nga fekk doomu aadama boo xam ne suul nañ ko te boo xoolee néew bi di nga xam ne kii commencé woon na yéen ngeen ñëw nekk ay animaux nekk ay nit ñu bon nekk ay jaaxi nekk ñoo xam ne yàlla dafa jël seen xol yi rek rocc ci yërmande yéen sénégalais yi yàlla dafa jël seeni biir xol rocc ci yërmande moo tax ngeen soxor ngeen ñëw jàpp doomu aadama di di ko génne ñëpp taxaw ngeen taal seen téléphone yi di ko filme foog ne ndam la gis nga kii ngeen toroxal ne góor jigéen la toroxalu leen ko lii ngeen def toroxalu leen ko xam nga lu ngeen def da ngeen jaaxaan di saw seen kaw lay këppu parce que xale yu ndaw yi ngeen wan lii xale yu ndaw yi ngeen wan yu ñaaw yi jëf yu bon yi ñaaw yii xale yi di ko seetaan lu musuta am senegal xeetu bon bu ne am na fa xeetu ñaaw teef bu ne am na fa dab nañu nit butti ko dóor nañ fi nit paaka dóor nañ fi nit muul mu dee waaye sulli nit ba pare taal ko réew mu nar a yàqu rek foofu lay commencé te di ngeen ne waxoon naa leen ko nag man Saa biram Birame lu ma leen musa a wax teg leen ci seeni bët di ngeen ne man mbaaye waxoon naa leen ko yéen senegal yéen a ngi woote tooxi duuna goo xam ne bés bu leen wuy see ngeen doyal barke alxuraanu karim. Baye dugg ma de xam nga lan moo ko gën a réew bu ngeen demee bay taal doomu aadama yi fekk doomu aadama bu tëdd nga taal ko teg ko ñax loo xam ne yàlla moo ko jagoo. ay puna kay bu doon ñax mu gën a oyof puna. nga xam ne nii puna yi bu ruusee ci kaw rek ngay bëgg a dee kaw su bu la laalee tey ji doo dox. yàlla yàlla rek yàlla rek yàlla rek moo jagoo lakk. yàlla rek moo jagoo lakk. bu génnee àdduna dañ ko war a taal amul. wala loolu ngay wax ñu naan la oustaz kaay ban oustaz sama koy waxal doo gis benn oustaz bu taxaw ne la yàlla nee na nañu nàngam oustaz Sénégal yi nag ñu ci bari ay naafiq lañ bës la ñu waaw dañuy jël diine ko Sénégal dëkku yéeféer la quatre-vingt pour quinze pour cent yéeféer ndax julli dëgg julli dëgg julli dëgg du tiim doomu aadama ne da koy taal même bu nekkee góor jigéen yàlla am li may wax damaa bëgg mu leer xam nga maa ngi def samay vidéo ñu naan waaw góor jigéen day défendre góor jigéen ñi boppam dama ne la man diine laa leen di wax ak xam-xam alxuraanu yàlla ji dama ne leen man aadama boos day néegri amul fenn fu alxuraan fu yàlla waxee ne góor jigéen bu génnee àdduna da ngeen koo war a taal rawatina nag nga taal nit ki te amoo preuve ci moom soo koo fekk muy kattante góor looloo gën a bon te taal yàlla nee na man rek maa ko jagloo gunóor amu leen droit taal ko yéefar amu leen droit taal ko ngeen nit ko ñu denc ko ngeen jël ko sulli ko door ko ay buna taal ko tegu leen ko ci lislaam tegu leen ko ci diine du xadis du alxuraanu yàlla dafa leer li ma leen wax amul benn ustaas bu koy dindi défendre ma kenn parce que góor jigéen ku ne xam ne ne baaxul mais défendre ma kenn mais dama ne da ngeen ko layoo ak yàlla ay mbokkam nanu parente xam ne injustice ngeen ko def tooñ ko ñu katt ndayu imaam yi ko def ci kaso bi teguñu ko fenn bàyyi ko dama ne la ñooñu nga xam ne sax ñoo dem di taal góor jigéen ba tey ñii ñoom bu leen yàlla atte woon ñoom ñëpp dañ ñoom la ñu war a taal Sénégal ñu ñu war a taal taaluñu leen dëkk boo xam ne quatre-vingt-quinze pour cent musulman ñuy yëkkati ay kartu caga di ko jox jigéen ñi naan leen dem leen jaay seen bopp et Amérique ngi nii moo gën a bon ci àddina waaye dañu tere jigéen jaay boppam parce que jigéen dafa am valeur taatu jigéen dafa am valeur kenn du ko jaay Sénégal du ko jullit ñu jël ay jigéen jox leen ay carte yóbbu leen repos Mandel nit di xool ndax am ngeen feebar war a amu leen feebar ndeyu ñaawteef yaa ngi nii boo ko bëggee jënd fii ci Amérique da ngay wane carte muy sàngara te Sénégal jullit yee koy naan catholique yi nga xam ne ñoom la ñoom lañu ñu mérite ñoom la ñu eh, di seen sëriñ di ko naan ba man di seen bëti rosé da ngay jàkkaarloog sëriñ taalibe yu wër ko mu leer la ne kii dafa ne tat man bay su puus te kenn du ko wax. léegi loolu am na lu ko mbaayee dagguma la de. njaaloo bi nekk Sénégal lan la ci yàlla wax. yàlla nee na foo fekk koo xam ne nii dafa am jëkkër. yaa ngi dégg ba pare di kattante keneen wala mu am jabar di kattante keneen l'islam rey na ko cadavre yi nga xam ne nii yàlla rey na ba pare ñuy dox Sénégal ak a ñoo bëri lu tax rey ñu ñooñu. may ma ma ñëw. dama ñu tax lakk ñu loolu lakk leen léegi léegi nii. wax nee na ku biiral ku biiral dañ la war a dóor téeméeri yat Sénégal dañuy dóore téeméeri yat te pourtant kër gu ci nekk téeméer fois dix téeméer fois cent nga fa di nga di nga fekk sa di nga fekk sa di nga fekk sa nga fekk sa bëri na nga fekk sa baay biiral fekk sa ndey biiral fekk ñu biiral sa yaay fekk sa mag biiral waaye duñ ko def xam nga Sénégal dëkku lan la dëkku kumba am ndey ak kumba amul ndey mais nag yàllaa ngi naqaral doomu jàmbur yi di naqaral yaayu jàmbur yi parce que kii ngeen jël taal ko yaayam am amul ko neex baayam amul lu ko neex. ay mbokkam amul lu ko neex dégg naa dafaa jaare xaru xaw ma nag dëgg la am déet dama ko dégg rek. léegi seeni seeni xol seeni xol naqari na seeni xol metti na. ngeen foog ni metti doomu ngeen di def ma ngeen foog ni ngeen foog ni. ngeen foog ni méttit googu ngeen di def yàlla da koy bàyyee noonu yàlla du ko bàyyee noonu de gis nga yéen sénégalais coono gi ngeen di dundee naqar gi ngeen di teg doomu aadama yi mitit gi ngeen di teg doomu aadama yi toroxal gi ngeen di toroxal doomu aadama yi loolu la yàlla di jël def ko ay musiba di leen ko këpp ngeen di am problème biir Sénégal saa bu ngeen xëyee nekk ca dëkk ba di xiif di leen rey mar di leen rey ngeen am alal sax di dund naqar ngeen dem bitim réew di fa sonn ngeen ñëw Amérique di fa sonn dem Espagne di fa sonn dem ba Europe di fa sonn fépp fu ngeen dem Sénégalais yi képp ku immigré ci àddina rek réew moo dem fekk fa immigré rek Sénégalais ci gën a sonn parce que seeni xol moo bon man dama koy wax chaque jour man faalewu ma leen lijjantiwu ma leen man àdduna du yàgg ba ngeen taal ma man